mbokki internet Lac Rose TV euh, comme nañ leen koy defalee saa su rek euh, tey ñu ñëwaat fi nga xamante ni euh, moom mooy kër mboose bu ñu fi ñëwee nag dafa am loo xamante ni moo tiital askan wi moom ñu ñëw ngir mu wax ñu ginnaaw yàlla ak yonent bi mbir moomu naka lay tëdde muy diggante match bi nga xamante ni moo dox diggante Sénégal ak Côte d'Ivoire mu gis ci lu yéeme gis ci lu doy waar moo waral tey. ñu ñëw seet si ko soxna Mbossé ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. ñu ngi lay ziar bu baax. Hmm, soxna Mbossé liggéey bi fu mu toll. Ah, liggéey bi moom yàlla nga koy doxal ci barke Sëñ Fall lépp nag sama maam la ak yàlla yonent bi man dama leen ne yàlla lay baax ko samay maam yi nag dañ doon wax ne yàlla tawal mu taw ñu ne ko donul mu donu wante man loolu dama ko tegg fee Sëñ fall rek. Hmm. ñu gis la saa heure bu ñu ñëwee nga teg euh, leket gi. Euh, teg butéel yi sotti ndox loolu lan la. waaw butéel bi day seet lekkat bi day seet pettaaw yi day seet sondal bi day seet ah baal ma ak jox ma sama kaan bi mu nga ca tuur yëpp nga nga koo ah. ngi fàtte waruma mhm. Mhm. ñu gis saa su ne heure bu ñu ñëwee rek dinañ fi gis lii nii. Mhm. Euh, lan nga ñu si mën a wax. Pape li dama koy liggéeyee lii dama ko doon dama ko fekk ndax bu doon xaalis leeg fa njaay jaata njaay passé naa fi barke sëñ Fall wante dama ne Sénégal moo ma ñor te dinañ xam ne Sénégal moo ma ñor man du xaalis bu doon boose passé naa fi. barke sëñ Fall wante lépp nag kun ak sama liggey ne ak sama barke bay bala may jall nak paam may gërem sama yaay yaay bu bax la am ma diko ñaanal bu may def wax ci mom sa sama rongoñ day wat yalla no suuf euh, sedd ci mom sedd ña fa nek may ñaanal yaay waali sekk boobu dem jaaga ku bax la jigen ju bax la jigen ju moy yaay wal sek ma koy ñaanal mom tam yal nako yalla xare aljana ñañ fa fek ak ñaleen fa fek yalla na leen melaka yermena teel yal nañu yeewu sa déggu meew ya di naan yal ñu nekk sa tàndarma ya di féexlu si barke yàlla lu mënul amul te jaaga borom baax la ndax jaaga ku nelawoon génn àdduna da lay sanga set defar ba mu jekk nekk si dispensaire yi jaagaa ngi si dispensaire yi jaagaa si kaso yi jaagaa ngi lu ko waali jox day jël xaalis boobu def ko ci malaat yi ak ñi nekk si kaso yi may ñaanal nag Fatou Wade ak ñi nekk si kaso bi yal na leen yàlla génne ñu dellu seen i ndax kaso neexul yal na leen yàlla génne ñu delu seeni njaboot te yalla lolu buñ fa ci ba àdduna ci barke seigne Fall. euh lan nga ñu mëna wax ci li nga xamanteni mom lañu dekkmal euh ñu nekk ci coupe d'Afrique bi. Mhm. Sénégal war football 8e de finale. Mhm. contre Côte d'Ivoire askan wi yëpp tit mhm. loolu askan bi mo gisee ñu ci dafa am sëriñ yu bon yo xam ñu ci bir biir dëkk bi nga xam bëggu ñu ndam ndam bi nak bëggu ñu ko ndax bëggu ñu Sénégal am ndam. surtout nak fi nek fi yàlla tek lañuy gën di xex dafa am serigne wax ma ñëpp nak dafa am serigne yo xamne ne seen loxo setul dañ leen di fay xass pour ñu yak wante amna serigne yu bax yo xamne dañu tok toog ferenkolaay yi ñoom tam lu nit yak ñu defal amna serigne bo xamne xale bu ndaw sereer koku la ko nit ñi baye xel yàlla da ko may la muy wax te mbokku la seut la duma tuddu turam nak wante lu mu la wax dang koy gis nit du iñaan boo gisee ne nen nenenam du deug Eh, lan nga ñu mëna wax si match eh, match Sénégal match bi day bass katane yalla nga xam ndax daaw jéeg dama won ne Sadio Mané bobu boma gisé do ma xam sagar mbubb la ma fekkee ma tàngoor rek ni ma wax ga bi ñuy football boo dugg doomi woote woon léegi waa Gandia dina ne dëgg la ci wetu guy bi tok sama guyu mam bi ma tok fofu ñuy naan atay man ak ñoom Issa ñoom aw man ko ma aw mu ne ah ko gambi day duggal ñetti bi ma aw ne ma ngeccax ah, bi ñëw ku jigéen ki ñoo ma ne ko mu gàmbi day dugal ñett bii mu ne ma kon nag tey kumba jigéen maa yor sa attaaya ma ne ko soxlawuma attaaya sa la ma gis ak laay wax te te yu ma pertuwaat pertaat Pape dañuy xam ne nit du mbubb mooy tax nit di gis du daraja mooy tax nit di gis ndax nit ki nga bokk ak moom ndey bàyyi bu tuddee nelaw yow boo tuddee fii boo France nga di ko gis fii boo ba Amérique fii boo fépp amul jigéen amul góor yàllaay seet cër ba ko neex mu dugal ci nit loolu yàlla la nit ñi buñ ne kii munta xam lii munta gis li déedéet kon dañuy juum dañuy juum lama mun sama mu ñu ko barke señ Fall te duma ko bako duma ko tiitoo mhm. Mhm. est-ce que man nga ñu ñëwal tuti ci match bi wax ñu ndax dina tang ndax dina metti lu mu metti metti metti metti metti si jamm lay ci si yalla nga xam ci jamm lay muju nañu doori ñeneen ñi nañu lañu di am na ñoo xam na ñu ngi seen biir ñu ngi seen gannaaw dañuy yàq wante yàq googu am na ñuy yàq tamit ne loolu du am ci kattanu yàlla nga xam dama la wax keroog ne la kii yore football bi kii seen seef te mu njool. Aliou Cissé Aliou Cissé dama la ne ay ndam yi na da koy am xam nga suñ tournal bee waxoon naa la. Mhm. ci kattanu yàlla nga xam lépp da koo rëccoon nag ñi ko gën a jege nag ñoo ko yàqal. Mhm. waa Sénégal ñoo yàqal Aliou Cissé. ñoo ko yàqaloon wante lañ ko yàqaloon day ñëwaat ci loxoom ci kattan yàlla nga xam te nañ bind. Mhm. waaw nañ bind denc. Pape man du ma la sama rakk nga li may seet yëpp wax naa la ko wax naa la li ma yor ndax bu doon beneen journaliste tam du ma ko wax lépp ndax aduna wóorul aduna dafa luus te journaliste yu baax ñoo yàq ñu bone dafa am ñoo xam ne métier bi dañ ko yàq dañ ko xëjëmal am ñoo xam ne métier bi dañ koy defar ndax tey jii bu ma naroon wax lu bon sax dañ ko dagg. wante lañ koy publicité pour nga daanu dem vaar dugoon naa fenn ne Macky day dem troisième mandat am keroog ku ciy wax man gis naa ko jaxan mu ne diw moo waxoon ne joxewul tur nit a waxoon ne day joxe Macky day génn troisième mandat ki loxo da ko setagum ci politique bi njabootu laay wadd politique bi seen loxo setagu ci wax day set ndax tey bu ko Karim gañe woon Macky ko gañe ndax ñaari baay bàyyi Karim mooy bàyyi Macky Maki lu mu am lu lay wad la bu ñu nëbbu deug lu mu am Laay Wàdd tax mu am ko Laay Wàdd yar Macky moko won politique djouf sar ma diko bu baakha baakha baax Souleymane ndey ndey sama mam la man pour yee sama mam sama mam da don takk ay jaam lo dafa amatu Souleymane ndey ndey mom sama mam ak la ma di ko nuyu di ñaanal jàmm mom djouf sar ak ñepp ak ñewu wut keroog lu ma leen wax Sonko mbokk la wante bu dafa Sonko dom la seut la. loola la tax ma wax ko maa ko xam du dëgg wante bu lëndëmee da ngay mel ne dafa lëndëm wante Sénégal kuy wax dëgg bëgguñu ko kuy sos amay vie bu ëllëgee ñu lay waar bu ma ko defal kenn sëñ Fatou rek euh, lan nga ñu mën a wax ginnaaw bi ñu génnee ci match bi euh, élection yi ñu dëgmal ko. élection yi candidat yi ñu tànnagul. kan nga gisagul kan nga mu féete ci kaw. Ah, am na ñaar ñu féetoo ci kaw. am na ñaar ñu féetoo si kaw am na keneen koo xam ne dafa bokk si beneen parti mu fàq kooku tam ci kow la féetoo muy ñett yu féetoo ci kaw wante nag am na koo xam ne dafa frenkalaayu ànd ak sëñ Touba dafa frenkalaayu ànd ak sëñ Touba yore kaan bi waaw du mën a nëbb foofu lañ mën a gum yam ci politique bi duñ wax ne diw la déedéet. Mhm. Mhm. Euh, fan yi defoon nga fi tukki génn. Mhm. Euh, ñëw. lo indale comme serigne ci walu gar ay bagages yu ay cumukaay ay kànnaar ay ak lenen ak lenen may nuyu dou sama càmmeñ ju bax joju nga xam ñag la asapulaay saraxule la kat la nga xam ku bax la ku ñaanul la makoy nuyu bu baxa baxa bax jambar baax jàmbaar sama xarit la yorna ay kanar yorna ja ay fas ndax sa digganteeg sa jëkër buñ ko bëggé bolé guuy lañ koy défé xasu guuy xas bi si weex bi buñ buggee seen diggante gën a neex moom la ñuy booleeg poqe moom la ñuy booleeg poqe yaa sa jëkkër ngeen di takkanante buñ paree lem lañ koy kaas yooyu yëpp mu ngi fi bagage yaa ngi fi sunguf yaa ngi fi ak yeneen ak yeneen ak yeneen sangat yi nga xam ne day ubbi nit mu ngi fi lépp a ngi fi si kattanu yàlla nga xam paap. Mm-hmm. lan ngay wax sa client yi nga xamante ni ñu ngi bitim réew. sama client yi bitim réew yi nañ jóg defaraat seen yaram yi wante nag buñ defee ne ñëppay naxe déedéet liggéey day set liggéey day set liggéey day set waaw mooy nuyu maam bu Buso sama xarit la ndax bi jëkkëram nelawee yàlla na ko yàlla yërëm xarit ko àjjana moom tam jigéen ju mun góor la ma koy nuyu bu baax a baax sama xarit la yaa ma boole moom koy nuyu bu baax a baax a baax sama xarit mhm. ndax bi jëkkëram nelawee man maa doon seet mosuma faa liggéey nag wante seet moom dama ko fa doon def maa doon seet mu ñëw iñaanul tam ne ma jëlal liggéey bi di liggéey ku iñaan du def loolu Makoy nuyu bu baax mom tam. di nuyu sama setu señ ki bi nga xamne ne ma wakal barki dem lay set ni man di ñaanal jamm ma koy nuyu bu bah mhm. mhm. baaxa baax ndax bu iñaanoo tam day liggey ni man du tok di ma nuyu di wax sama gis-gis dedet mhm. wante li amul soxor ku ne la la yalla may la la yalla may nga mëna liggey tay tey loo ñu mën a seetal keroog nañ fi nga sétal ñu wax ñu lu doy euh, ñu mëna sétal ci ndox wala ci. <laughs> <laughs> seet gi tey lan moo ci am. sëñ Fallou rek may nuyu waa Touba bu baax a baax nag sama maam yooyu ak waa Kaolack kër maam bay na nga xam ne bu ko neexoon doy ko bu ko sama maam am na jabaru pël ñun dañoo laal ci pël kon ñun pël mënuñ koo bañ ñoo ay mbokk ñu ñaanal Sénégal yëpp ñëpp jàmm jàmm am rakk yoo xam ne joolaa lañ sama tante moo leen jur moo sama yaay ak seen yaay ñoo bokk ndey baay ñu kon nga xam ne xeet yëpp a jaxasoo nañuy ñaan Sénégal jàmm.